kon ñu ngi sant borom bi subhaanahu wa di la santale borom bi di la jaajëfle di la santale cheikhuna alxadim radiallahu anhu bëgg nag mbàkke liggéey bi ñu tàmbalee ko loo xam ne alliwa ji cheikhuna alxadim radiallahu anhu moo ci dalaloon sëriñ maxtaar binte bind ci dalal ko ci nu bëgg nag sa liggéey bu tedd bii nga xam ne mooy liggéeyu sëriñ bi nga dalal ci tu tànk yii nga xam ne seeni waajur wuy si sa woote bi ni ko ñëpp defee moo tax ñu indi leen fi yaakaar ju tëye tax ñu indi leen fi loolu yi nga wax ne da ngaa bëgg a fëggeewaat gili ni taalub Seexuna al Xadim radiyallahu anhu ba moo tax ñëpp daw fekk si la kenn ku nekk borom xam yi ñëw yàlla may wërsëg ñëw waaye ñi am seenu njaboot itam seqee leen ci ay daara yu nekkoon ñëw indi leen fii ngir yaakaar fi ne danañ doonaat mbeñet moo xam ne mooy garab ga Cheikhuna al Xadim radiyallahu anhu jëmbatoon tam sax jëm kaw te day gën di men day gën di sëq di gën di naat di gën di yaatu te àddina bi yëpp xaj nañ ci àddina bi yëpp mën nañ ci jariñu kon sëriñ bi ñu ngi wàcce sunu kàddu fës yéene nag tànn ñaar ci gone yi nga dalal leen muy ku góor ak ku jigéen ndax ku dem poroxaan xam ne jigéen am na cër te almuslimina walmuslimat walmuminina walmuminat walqanitina walqanitat wasaadiqina wasaadiqat wasaabirina wasaabirat ba aye ba jeex alquran noonu la ko kon bismillah sëriñ wax rek kon mboolem tu tànk yi nga xam ne ñoo ñëw sëriñ bi day wax ñu barkeelu ci dalandoo baa siin miim alif laam laam laam ও আজকে আজকে আলহামদুলিল্লাহ